gan gi Abdou Karim Diakhaté xelam màcc ci wàllu communication ak euh, wàllu politique euh, mais également géopolitique ñu ngi lay nuyoo. maa ngi lay fay Fatou Thiam Ngom. ñu am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM euh, waxtaanee actualité notamment ñu tàmbali ak taxawaay bi yi Askan Wi am ak ku mel ni Aminata Touré président Macky Sall invité leen ci fête nationale bu 4 avril ëllëg ñu gàntal est-ce que comprendre nga boobu taxawaay. waaw dëgg la xam nga feetu 4 avril dafa nekk loo xam ne réew mi yëpp la soxal. Mm. mu nekk daal vraiment feetu armée bi ak ndaw ñi. wax dëgg yàlla réew mi yëpp waroon ànd man ko ci bokk ko noo feete waaye dafa fekk nag xam nga euh, kii politique bi daf ñu nekk ci situation boo xam ne wax dëgg yàlla ku gi dañu jàpp ne nguur gi en tout cas mayu leen dara ci yeneen i mbir mm. gis nga am na ñu bëri ñoo xam ne ñi bokk ci opposition bi actuellement ñu ngi ci kaso yi donc lu gënoon xëy na baax moo doon waxtaan daal am waxtaan boo xam ne wax dëgg yàlla waxtaan bu yaatu lay doon ba daal ñu gis ne ñëpp nañ ànd manko ànd dam ci waaye nag wax dëgg yàlla nga invité ñoo xam ne xëy na ci beneen wàll gi yaa ngeen di en tout cas ja tase ci yeneen i mbir kooku dina xaw a doy waar donc mën comprendre naa parfaitement ñu mën a gàntu invitation bi même si encore maa ngi koy fàttali wax dëgg yàlla ñëpp ci àndoon waroon ànd manko hmm. waaye nag aussi opposition bi ci seen ci seen dëgg lañu nekk xëy na. parce que doo toog am noo xam ne dañ leen def ci kaso bi. Hmm. ngay dem nag di wuy ci leneen dafay mel yow loolu soxlu la. Hmm. alors président Macky Sall war a wax ak askan wi tey ci guddi ni mu ko baaxoo bu ñëw dëkk ma lee feetu indépendance euh, lan nga yaakaar ne ci la war a wax euh, ci lu ko ñëpp di xaar. waaw xam nga discours président de la république le 3 avril. comme bu 31 décembre dafa nekk lu am solo hmm. ndax euh, kàddu yi muy yëkkati jëmle ko ci askan wi nit ñi dañ koy xaar lool di séentu vraiment mu wax ci ci jafe réew mi ci en tout cas jumtuwaay yi mu jox armée bi parce que daanaka militaires yi ñooy défilé ñu wane li ñu am ci mbiru karangeeg yooyu waaye nag nit ña ngi ciy séentu wax dëgg yàlla mu wax lu jub ci seeni dundin bës bu ne parce que gis nañ ne mbir yi génn dafa gën a metti te wax dëgg yàlla am na ci ay mbiru karangeeg yoo xam ne yu bëri yoo xam ne nit ñaa ngi ciy séntu daal mu wax ci xëy na nag ñu bëri tamit dinañ seetlu ci côté politique bi mu wax en tout cas euh, leeral euh, taxawaayam ci mbiru euh, ñetteeli mandat bi ñu wax ne moom lay bëgg a wuti xëy na am na ñu koy séntu waaye man daal en tout cas li ma soxol li ma foog li ëpp gën a jàmp hmm. mooy mi wax ci li xew ci réew mi karange gi ak xëy na Euh, arrestation yu bëri yeeg yooyu ñu seet daal ni ñuy fexe ba jafe-jafe yooyu yëpp en tout cas wàññeeku président ibbi ay buntam vraiment waxtaan ak ku jéggi comme sa réew mi gën a dal. est-ce que yaakaar nga mu wax ci ñetteelu mandat bi tey leeral ndax day demam déet. Euh, ñetteelu candidature bi loolu de moom rek moo ko mën wax parce que fu mu toll nii nit ñi ko ci doon séentu xëy na depuis lu yàgg. moom nag moo yore agendaam xëy na moom mooy mm. toog ba heure bu ko toxalee waaye wax dëgg yàlla fi ñu toll nii li nit ñi naan nañu létt mbaa ñu firiñu mhm. fa lañ toll parce que pour réew mi gën a dal bu ci waxoon mu jëm ci côté bee wala jëm ci beneen wi wàll wi dina baax pour que nit ñi xam daal fu ñuy taxawee mhm. waaye lu wër ba wër daal mooy fu ñu toll nii lu gën a soxal askan wi mooy dundinam bës bu ne mhm. alors bokk na ci li soxal opposition bi ñoñam yi ñu jàpp dugal ci euh, kaso bi ñu tuddee leen ay détenus politiques est-ce que yaakaar nga ni xëy na pour dalug réew mi mën nañoo yaakaar président Macky Sall ni mu ko baaxoo buy gracier tey mu boole ci ñooñam. Ah, waaw yaakaar naa ko yaakaar naa ko nag ndax wax dëgg yàlla ñu bëri ci ndaw ñiy jàpp wax nañ ne ñu ci ëpp daal booy seet ñu ci bëri daal li tax ñu jàpp leen buñ ko xoolee ba ci biir daal xëy na du soxla ñu leen di téye ci ci kaso gi xëy na nag. Euh, état moom mooy xool nu muy jugé waaye dina doon rafet lool lool président de la République vraiment ci li ko yàlla may ci dooleewu di gracier comme ni koy faral di defee ci ay tabaski wala ay 31 décembre vraiment moo kii yërmandeem pour vraiment jeunes yu bëri delluwaat seen kër réew mi gën a dal daal ñëpp nekk ci jàmm. Mm-hmm. alors jeunes yooyu ñu bari ci ñoom ñu jàpp leen euh, ci lu jëm ci euh, procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko xam nga ni yàgg na manifestation yi mu juróon itam bari na euh, boobale procès ñu daal di koy àtte le 30 bi ñu weesu joxe ci lu ñu tuddee verdict d'apaisement na maanaam verdict boo xam ne dafa doon wut dal ci réew mi waaye am ñu gis loxol France ci ginnaaw boobale verdict bokk na ci ñoom maitre Juan Branco avocat bu Ousmane Sonko ndax yaakaar nga ni France dugal na loxoom ci mbir mi waaw xam nga li ñu mën a wax ci procès bi am ak verdict bi justice bi joxe nañ jàpp nag ne vraiment justice su Sénégal moo joxe verdict hmm. justice bi fii lañ ko jugé wax ci liñ ci wax xëy na d'accord euh, en tout cas li mu feeñal mooy ne daal ci jàmm daal moo gën même si li ñuy condamné Ousmane Sonko ñi ko jege ak moom ci boppam rafetluwuñu ko parce que jaañ jàppoon ne xëy na liñ ko tuumaal yeggul foofu wala li waroon nañ xool leneen ci mbir mi hmm. mais man personnellement. jàpp ma ne France moo naan dafee nii wala dafee ne même si nag avocat usmaan sonk bi waroon ñëw mooy Juan Branco te ñu tere ko mu dugg si moom am na lu mu wax wax ne sax France am na ñu mu yebaloon pour ñu gisee gouvernement bi waxtaan ak ñoom ba ministre Abdou Karim Fofana weddi ko waaye la mënti am vraiment Sénégal am na justice su boppam di na ñaaw lool sax ñu mun yaakaar ne suñu juge yi nañ topp ñu leen di jox en tout cas yeneen ordre yu jógee France wala feneen pour ñi jaar fii wala fee. est-ce que yaakaar nga guddi yi ñu toll France Ousmane Sonko intéressé na ko. ah oui xam nga France nag. Euh, xëy na mu war a mën a wax ci mbir mi. France ñoom dañu am benn taxawaay bu ñu nekkee en Afrique. Hmm. xam nga ñoom daanaka dañ fiy bëri ay intérêt. seen entreprise yi fu ne lañ dogutee nag France nag dañu yàggoon ak moom hmm. amoon ay relation yoo xam ne dëpp colonisation bi la loolu nag ñoom dem nañ ba jàpp ne di ko Afrique en tout cas Afrique yi nga xam ne moom moo leen colonisé woon hmm. bu ci yëngu rek moom war na xam ne muy doxalee ci loolu nag dafa am loo xam ne dafa nekk lu ñuy mën a nangu mooy ne France ba tey dafa teg loxoom ci yenn gis-gis yi war na en tout cas yenn jëfin yoo xam ne mm. jàpp ne ne ba léegi daf ci war di wax mm. waaye loolu yëpp nag dafa nekk sañu état yi ak suñuy dirigeants yi ñoom ñooy xoolee aussi ni ñuy taxawee parce que France dafa nekk dëkk suñu dëkk yi aussi nekk ay dëkku mm. yoo xam ne ñoo bokk li ñu naan dignité mm-hmm. au plan international ñoom moom ku nekk da nga moom su bopp mm-hmm. waaye nag wax dëgg yàlla kuy xool ba xool gis ni ñun suñuy économie yi yi ci ëpp en fait France daf ci dugal loxoom bu baax a baax sañu weccit bi ñuy yore xaalis bi lu bëri également France daf ko yore mooy de derrière kii bi à travers l'euro yooyu yëpp nekk na ay conditions yoo xam ne du dafay jafeel suñu dëkk yi ñu demal seen bopp. Hmm. waaye teewul nag aussi bu war a dëgg waree nekk ñu wax ko nañ ko wax rek nangu ko parce que àddina léegi dafa soppeeku. Hmm. te am na yenn taxawalin yu bees yoo xam ne moom la war a taxawee. Hmm. alors euh, Ousmane euh, Sonko ba tey mel ni génnagul ci euh, guuta ndax Mame Mbaye Niang ak parquet procureur décidé nañu def appel ndax yaakaar nga ni ca cëppaandaw la moom usmaan Sonko mën naa ñàkk éligibilité maanaam sañ-sañam bokk ci élection. waaw xam nga procès bi def nañ ko ba justice bi rendre verdict bon li ñu naan première instance mooy ne njëkk na jaar ba justice joxe dogalam ci loolu sax gis naa ne Mame Mbaye Niang moom rafetlu woon na ko lool kontaan ci waaye dafa dem ba ci biir dellu siwaat ne moom dina dafa appel ak parquet bi waaye man dama jàpp ne loolu yëpp dafa nekk li ñuy naan ay gesticulation xam nga politique dafa bëree ay mbir fu ne nii xëy na comme Ousmane ko nekk na koo xam ne en tout cas taxawaayam dayoom xam na am na xëy na ñu mu xaw a jaaxal xëy na dañ koy li ñuy naan ay peau banaan banane lañ koy teg. nga xam ne duñ ko yombal dara. fii ba muy bëgg a présenté wu nañ fexe lépp lu ñu mun def ba gàllankoor candidature am loolu nag Ousmane Sonko ak ay ñoñom ñoo war a xoolee ni ñuy doxalee bu ko defee aspect li ñuy naan aspect judiciaire bi hmm. avocat mi topp ko léegi li ci politique bi mobilisation militant mi yeeg yeneen combat yi mu mën ne ko plan politique waaye du yomb daal pour moom waaye jàpp naa ci en tout cas ci sama gis-gis. ne wax dëgg yàlla bu ci damee ndànk rek loolu war mun a tee mu mun a présenter candidature am. Hmm. alors euh, lan nga jàpp ci communiqué euh, yu Yewwi Askan Wi ak larme bi Yewwi euh, njëkk a génne bosam wax ni euh, manifestation bi mu waajoon tey ñetti fan ak weeru euh, ñetti fan ci weeru avril daf ko dàq gannaaw bi mu waxtaanee ak ay grade yu force de défense et de sécurité l'armée bi tontu ne nañu ko génnee ci mbiram politique artu ñaari boor yëpp loo jàpp ci ñaari communiqué yi. waaw bon man nag communiqué wu armée bi xëy na du ma ci mën a sore parce que bon aw ma ci lu ma wóor lool lool mm. waaye ci communiqué wu yeewi bi moom moom euh, gis naa ko euh, en tout cas bu dee li ñu euh, annulé seen manifestation bi moom déjà ne nekk na loo xam ne dañuy naan lecture lucide ci politique dafa am loo xam ne booy taxawal stratégie da ngay xool li la mbedd mi ak li la réalité yi jox nga ci ci doxe waa yeewi nag dama jàpp ne. gis nañ ne xëy na am na benn genre euh, étape bu ñu franchir mooy bi procès bi amee ba vraiment seddal am ci ñoom ñi dellu ci ginnaaw jàpp ne aussi 4 avril dafa nekk loo xam ne dafa war a boole ñëpp warul féewale kenn xëy na loolu tax na ñu xoolaat delluwaat ginnaaw ci loolu xëy na peut-être dinañ def manifestation ci yeneen anam mais ni ñu ko jëlee nii décision bu rafet la ñëpp di koy rafetlu. Hmm. est-ce que di tudd politique di tudd takk der yi lu mel ni l'armée loolu euh, mënut a nekk xëy na lu lu ci jamono yiñ toll ak bu ñu xoolee li xew ci réew yi ñu wër. waaw justement parce que loolu dafa nekk lu am solo gis nga armée mhm. vocation régalienne mooy daf fi nekk pour réew mi souveraineté dëkk bi. Mhm. armée ak force de défense et de sécurité yi. vraiment kenn waru leen dugal ci jeu bi. Mhm. ak lu muy metti metti sañu acteur politique yépp nag muy ñu yore nguur gi war nañu fexe ba ñu bañ leen dugal ci biir yenn mbir yi. Hmm. xëy na nag dina jafe loolu sañu dëkk yi ba baat ni muy doxee. Hmm. ñuy wax ne séparation war na ci am waaye ak lu mënti am rek nañu faxe ba vraiment génne leen ci parce que gis nañ wax nga ko yeneen dëkk yi li fay am. Hmm. te loolu nekk na loo xam ne vraiment du lu rafet. te ñaan nañu mu am fi. parce que peuple bi ak armée bi dañu war a mànkoo nekk benn parce que armée bi en fait ay ay ay kii la ñu rek ci biir nit ñi la ñu askan. su jógee. am na benn chef d'état militaire bu ci sous-région bi ma doon wax ak bés mu ne ma militaires yi ngeen di gis di wax ay civil kii lañu rek yoo xam ne dañu sol tenue mhm. parce que bu ñu sibee tenue bi nekkaat ay civil ànd ak ñoom par conséquent dañu jàpp ne rek ñun ñëpp benn lañu mhm. armée bi comme civil yi ñëpp dañu war a àndandoo maa ngi xam ne intérêt réew mi moo war a nekk ci au-dessus li ñu naan intérêt particulier yi mhm. alors ñu wax ci euh, yeneen réew yi ñu wër fu mel ni Burkina Faso capitaine euh, ab capitaine u l'armée bi moo fa nekk tey jiite ko euh, moom mu daal di ci fan yi barki démba dàqaat ay journaliste France Le Monde ak Libération lu ko jiitu mu dàqoon itam ay taskatu xibaar yu France bokk di liggéey ci RFI loolu mel ni luy gën a jëmmal sentiment anti francais maanaam beddi gu ñuy beddi France yooyu la réew lataali yëpp nag Burkina Faso boobu ak Mali yi fësaloon ab alliance lëkkaloo boo xam ne euh, xëy na mën naa bañ a jig France ndax jot na tey France tiit ci ñaari réew yooyu. ah fooy France moom jaaxle na lool waxuma sax Burkina Faso rek ak ak Mali mais muy Sénégal ak yeneen dëkk yëpp sax mm. France am na taxawaay boo xam ne moom la moom la ci nekkee xam nga yaa ngi koy wax Burkina Faso ñoom li ñuy ñu génn ci journaliste yi dafa ñëw topp ci li ñu génnee ambassadeur u France mm. ci weer yee ñi passé te gis nañ également ne li ñuy naan force spéciale yu français yi amoon foofu ñu nekkoon ñetti téeméer ñu tuddee loon woon euh, kii sabre ñoom génn nañu te Mali gisoon nañ ne aussi force Barkhane bi fa nekkoon nekkoon fa ñetti junni soldat tamit génn nañu Mali mm-hmm. loolu dalay woon ne France léegi doole ak taxawaay bi ma amoon ci sañu yenn dëkk yi amatu ko mm-hmm. léegi daanaka booy xool dëkk yi ko fi des yoo xam ne vraiment disons autorité mi ngi fay prévaloir dañ koy xoolaat mm-hmm. ci loolu nag dafa am leneen lu ci rax parce que déjà en plus di fait que France ci boppam dafa li ñu naan perte d'influence hmm. dafa am yeneen dëkk yoo xam ne ñenn sax ga ñoom daan nañu am noonu ay am ay relations yu yàgg ak Afrique comme ay Russie wala ku mel ne Chine hmm. ñooñu nag dañu ñëwaat ak doole ak yeneen dëkk yu mel ne Turquie hmm. léegi di ñëw nag di xëccoog France daanaka loo xam ne dañ jàppoon ne France rek a fi moomoon loolu yëpp nag bokk na ci gàllankoor relation France ak seen dëkk yi boole ci nag jeunesse bu taxaw maanaam ay ndaw yoo xam ne dañu bëgg lii fi en daan am dañ. Hmm. yooyu yëpp nag bokk na lii tax France vraiment taxawaayam gën a métti ci mbir mi boole ci encore nit ñi dañ jàpp ne pratiquement sañu économie yëpp dafa mel ne yu ci ëpp France daal moo ko yor gis nañ ne ci mbiru koom-koom ci mbiru koom gi économie bi. muy fi xaalis mbiru xaalis presque yëpp France moo koy garantir. Hmm. loolu nekk naa nag loo xam ne nit ñi dañu bëgg mu dakk. Hmm. ci loolu nag boole ci ak mbir problème insécurité bi am ci Sahel bi ñu bari jàpp ne loxo France génn ci hmm. loolu nag dafa bokk ci ni tax France ba tey taxawaayam metti alors lii di am bu dakkul lan la mun a yàqal France ah non France ka yàqal déjà mi ngi mi ngi ñëw parce que gis nañ ne euh, amoon na ay période suñu dëkk yi boo waxee même ay États-Unis ak yooyu dañ ko bàyyi nag France léegi tubaab naan chasse gardée hmm. maanaam dafa mel ne moomeelu France la woon hmm. léegi nag Afrique nit ñi dem nañu ba jàpp ne dañu war a dem ak suñu bopp te jeunes yi fi am néegi dañu wuuteeg ni ñu doon xalaatee dans les années soixante wala dans les années même quatre vingt. Mm. léegi jeune yi dañu bëgg rapidement mu am benn rupture euh, rupture boobu nag dafa am ay leaders yu bees yu ko incarné ñu mel ne par exemple boo demee Afrique du Sud ay Thomas Méléman nga ñëw fi ay Sénégal ku mel ne Ousmane Sonko wala ay euh, bi euh, bees bi nga Masra fële ci Tchad. yooyu dafa nekk lu bees taxawaay bu bees boo xam ne. Mm. wax dëgg yàlla France tiit na ci parce que xam ne ne ëllëgëm bu moytul du neex der Emmanuel Macron wax na ko. parce que dañ doon wax ne euh, la l' Afrique l' avenir de la France waaye moom jàpp na ne bu ñu defaatul relation nouveau partenariat ak mm. suñu dëkk yi. Mm. dina metti lool pour France. Mm. mu continuer du wéy ni mu daan. doxalee. ndax mën nañu caa déggee ne France mënta dem san ñun ndax ñi nga tudd sànq ñoom seen gëm-gëm mooy ñun mën nañoo dem sans France mais est-ce que France mën naa dem san Afrique. ah li nga wax ni de lu ma leer la ñun sañ bopp mën nañ dem sans France waaye France nga mu mënee en tout cas même bu demee xëy na du sore. Hmm. parce que li ëpp ci li mu am. Euh, daanaka Afrique la koy jëlee d'ailleurs sax am na benn président français mhm. Jacques Chirac mosoon nag fi wax mhm. ne France daanaka lu ëpp ci ay kiom Afrique la koy jëlee te loolu na fa nekk réalité ndax suñuy euh, ressources yi mhm. naturelles yi mooy mines yi ak yu bëri France daanaka ci la ci la kii parce que France booy set amul benn ressource foofu sur son terrain yu ci ëpp ci pays Afrique la koy jëlee muy muy uranium bi muy l'or te bu boo xoolee France parmi les plus grands pays de kii de production d'or la mm. te France amul benn mine d'or <laughs> te yëpp fii la koy jëlee yaay sëñ ci sëñ dëkk yi donc loolu rek moo lay won ne mm-hmm. en tout cas ñun mbir mi bu buy buy tas di ci am. Mm. Ah, <laughs> France moo ci gën a sonn. ñuy metti ci ñoom lay jóge jërëjëf Abdou Karim Diakhaté ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi euh, FM fàttali ne consultant nga ci wàllu communication stratégique wala géopolitique géostratégie ak analyse de situation de crise ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. mais maa ngi lay gërëm Fatou Thiam Ngom di nuyu euh, tous les auditeurs de Rewmi FM. les auditeurs de Rewmi FM. les auditeurs de